nekkon ci ay yité seen bop ak yité yenn ci nit ñi ñi o di ñu sant yenn liggéey ndax umplé wu leen da naka ci nawet lañu génné ak nekkoon ci àll beeg yooyu ak yenen yi nga xamé ñu doon topato la loolu rek mo ñu tënkoon waye buñu sañoon ñu nag yeen heure bu nek rek ñu leen ni wan luy jëriñ nit ñi wax dëgg yalla ma indi tay lo xamné ne yaakaar naa ne nit ñi yittewoo nañ ko lool te soxla nañ ko lool ndaxte ku am taxaw lu dëgg waxuma sax ku taxaw seetlu waaye loo ñàkk-ñàkk-ñàkk-ñàkk seetlu boo xoolee ci Sénégal même bu fekkee ne nekkoo Sénégal sax ngay xam information yi xew Sénégal sax dangay xam ne maanaam Sénégal gii am na lu fi xew loo xam ne daaw fi xew te lépp luy xew te daawul xew rek dafa fekk ne maanaam dafa am lu ca rax lu ca bokut muy walum manam tafar yi di dal nit ñi tafar yi nak boko ko accident yang ngi ci déeyi gaaw yaa ngi ci manam leneen ak leneen mu ngi ci musiba naarullaahi rek ci gàttal ñi wax mu bëri bëri go xamanteni ci jamono ji ah ki am taxaw seetlu ta am bashira deug bu xoolee rek amna am lu xew man nak amul dara lu ma gis lu wuute ak maanaam jinne yi bon yi ndaxte Sénégal gi ñu nekk dang ne ay jullit lañ waaye nit ñi ñu ngi fétiche nit ñi ñu ngi xërëm nu mu leen te xërëm nag maanaam ci neex yàlla ak naqari yàlla loolu maanaam jinne yi nga xam ne ay shayatin lañ ñoo koy def jinne seytaan ndaxte jinne seytaane am na jinne bu gëm yàlla am na jinne bu weddi yàlla am na ndax yàlla ni bindee euh, nit Euh, ba ne ima shakiran aw ima kafuran maanaam da ngay euh, da ngay gëm wala nga weddi noonu la bindee jinne ne ko ñii dañuy gëm ñii dañuy weddi ni yàlla bindee nit ñi am ñuy gëm am ñuy weddi noonu la bindee jinne yi am ñuy gëm am ñuy weddi léegi nag am na si ñoo xam ne dañoo am turu jinne yi nga xamante ne nii dañ koy jël di ko liggéey Euh, baatinan ndaxte jinne mën nga koo am zaahir mën nga koo am baatin baatin bi mooy nga am tur bi di ko liggéey di ci def li ngay def léegi nag jinne yooyu ñu gëm yàlla dañuy yàq yàq rek moo leen tax a jóg ñi ngay liggéey nag a ah, war nañoo dellu te xool sin borom ndaxte yàlla wax na mu ne waman yattaqidi seytaana waliyan min dunillahi faqad xusira xusranan mubinan képp koo xam ne dangaa jàpp seytaane def ko mi ànd noo dangaa xalaat perte perte gu mag a mag mag a mag a mag waaw te seytaane moom digoon na yàlla bu yàgg ne ko euh, danaa jël ñenn ci say ay topp danaa fatt seeni nopp fatt seeni xol ba duñ topp keneen ku dul man kon nga xam ne kon boo amee taxaw seetlu ci jamono ji rek nga xam ne seytaane lam mu waxoon lépp man koy def waaye nag lépp rek ku ànd ak ndimbalal yàlla tey dellu ci yàlla yàlla mën na laa musal ci yooyu yëpp ñooñ di jëflanteeg jinne yi nga xam ne maanaam ay sayaatin lañ jinne yi dañuy dem ba dañuy soxla deret moo waral mer gi di yàq xam nga kiy yàq te gisoo ko kooku doo ko mën a aaye te dañuy yàq fu nekk nag ñeen fa taxaw dégg naa benn kilifa bu mag ci Sénégal mu wax mu ne xafaari di ñu ngi fees dellu senegal di yàq muy jinne yi mu ne ñu ngi fees dellu Sénégal di yàq kilifa bu siiw bu mos wax loolu xam na am na ñu ko jàppee woon ay ree waaye li mu wax dëgg gu wér péng la lu lu nit mëntu teggi la waaye nag tey dama leen indi loon loo xam ne ku ko def rek incha allah rabbi yàlla dana la dimbale ci musiba yooyu ak balaa yooyu li demee ni accident yeeg wàllum feebar yi bon yooyu yooyu yëpp da ngay jéem a fexe rek nga daal di bind kun bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadi wa sallim ba pare nga jël euh, suratul fatiha nga bind ko gannaaw aaya bu nekk nga bind xasbuna allah wa nixmal wakilu ba euh, fatiha bi jeex nga indiwaat beneen fatiha laaya ju nekk nga bind wallahu yaxsimuka min annaas ba fatiha bi jeex boo pare nga daal di bindaat fatiha gannaaw aaya bu nekk nga bind wa ufawidu amri ilallah inna allah basiru bi imbadi mu nekk yoo xamante nii duxut dara rek ci li nga xamante nii moom mooy euh, muslaay ak karange ak lepp lo xamanteni luy ar doomi adama la ci yi meuna dikkel ci ay jiyee yu bon bo pare da ngay jema fexe nga ut leket nga def ci ndox nga deglu mu bu baax nga daldi jël safara bi nga raxas ko bam set nga ut dunq bi ni ñi wax dunq tan mom ngay ut dunq tan bu ko defé nga jëm ko ci xoj momit nga ut li ni mu nek xay juroom ñaari xasi xay yu bokut mom ngay ut bu ko defé nga jëm ko debbu debbe bam nek sunguf ni bu ko defé nga daldi di ci rek nga daldi def ci biir fekk raxasoon nga saafara bam mu ak euh, dunku tan bi ci biir nga daldi ko ci def nga bayiko ko fanan fanan talata ci guddi nga daldi ko ko ben ciangu way ci guddi nga bayi bam waw bu ko defé nga tan bi ni bo paré da ngay jema fexé nga jéem ko lak bam nekk dom bu nekk boko ko bam nekk dom bu ko defé nga jéem ko xoojaat ci ndox momit ba talata bi ci wat nga ko ko bu soobee yàlla ak yonent bi waxuma la da musal waaye lépp lu mu fekkoon ci yow ci wàllu ay jafe-jafe ak ay gàllankoor yi bon rek da koy dindi ba mu set ci kàttanu yàlla kam baaxam ku bëgg rek man ngaa jël nga def nga jëriñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bëgguma guddal waaye bëggoon naa leeral ci wàll ñi liggéey ak jinne ak ñenn yi bon yi si def waaye bu beneen yoon incha allah rabbi danaa ci ñëw gën ci xóotal wasalaamaaleykum wa rahmatullah